merci euh, ñoom euh, Thierno Bocoum ñu ngi woon ci assemblée boobu noonu. ils ont attendu cinq mois le premier ministre il y avait pas ce débat là. Ah, donc débat bi encore une fois xanaa Ousmane Sonko rek lay mën a doon parce que Amadou Ba sax respecté wul lii kii di wax noonu. du droit ba alors que actuellement kenn tënku la ci temps. wax nga say ministre lañ dem préparer la ku ci nekk ci secteur bi nga nekk document de synthèse bi nga xamante ne jot nga ko liggéey parce que non seulement euh, li li li li mu yor comme projet tàmbali na donc ñu wax état de lieu pour dégager des perspective ñooy ñu ngi koy def pareegul yow temps tënku la ngeen bëgg koo wax wax. wala daa am lu ñu naan wax. Aliou. Ah man lii de tuuti pour mën a. kii su ma su bokkoon ci ñi Ousmane Sonko recevoir. Euh, euh, en tant que journaliste je serais beaucoup plus à l'aise parce que dinaa jàkkaarloog moom wax ak moom li ma ko bëgg a wax yépp mais comme bokkuma si ñi mu choisir woon recevoir leen fii rek laa mën a waxee kon je serais beaucoup plus courageux jàkkaarloog moom en face. et soo ko recevoir. wax ko non cherche je ne cherche pas mais dama lay wax rek parce que lu am la dafa recevoir ay journalistes ak ay animateurs man bu ma ci bokkoon laa wax. ce serait extraordinaire parce que lii nii may wax nii ci télé bi nii damay jàkkaarloog moom wax ko parce que depuis deux mois pratiquement maa ngi wax ci déclaration de politique générale fépp fu may mën a wax ci ay plateau parce que dafa am loo xam ne tradition la cim réew bala ma yegg foofu sax dama bëgg dellu si euh, euh, euh, il faut que ñu fi ñuy toog nii ñuy comprendre ban type de régime politique la ñu am pour na pas se permettre taxaw jàkkaarlook sénégalais yi ne leen Ousmane Sonko ak Diomaye la ñu fal si des suñu yoon nekku ci il faut ñu comprendre d'abord ñun ban régime politique la ñu nekk dañu am un pouvoir exécutif avec ak benn pouvoir bu tudd législatif yuy jàkkaarloo war a liggéeyandoo ensemble en concomitance des fois même avec dans dans l'hypothèse d'une divergence de majorité loolu il faut ñu comprendre ko ñu xam ne muy doxee pour na pas dire taxaw fii ne ñoom lu leen neex nañ ko def parce que ils viennent d'être c'est pas parce que vous êtes élu président de la République que forcément vous pouvez vous permettre de faire ce que vous voulez dans notre régime dans le type de régime que nous avons loolu il faut ñu xam ko ñu koy wax aussi sénégalais yi ñu seetaan ndax ñu comprendre balaa ñuy yaakaar ni un président de la République bu ñu ko falee ak premier ministre am nañ droit def lu leen neex. dafa am yoo xam ne daf leen tënk. ban régime lañ de loolu du ma ni on est dans un régime de séparation des pouvoirs a un dañ leen fal. te ñu war a lëkkaloo am une forme de collaboration bu war a am sans rentrer forcément dans les détails parce que li may wax ni ñi am ñi xam xam nañ li ma bëgg a wax kon bu ñuy permettre man je me permettrai jamais de dire que ni président de la République ñoom la ñu fal ils ont une majorité 54 pour cent ñoom ñoo war a def lu leen neex loolu waruñu ko wax pour bu ñu bëggee sénégalais di comprendre d'abord xam-xam ba pare dëgg. régime bi ñu nekk régime de séparation ay deux pouvoirs principalement yoo ne dañu war di collaborer wu parce que loolu la yoon wax. loolu parenthèse la woon pour man bu weesoo loolu. waaw parenthèse la woon rek régime de pouvoir loolu mënoo ne kii dañ ko fal rek lu leen neex lañ def ñu ngi koy doog a fal mu ne la fal léegi nga am majorité ak qui va avec mu nga am nga toog at nga nga nga perte sa majorité ba doo ba doo sax bëgg def mën a def li nga bëgg def yépp ngay obligé di collaborer di équilibrer di di di di di waxante xel ak xalaat ba pare ci intérêt réew mi ngeen obligé di waxtaan en permanence loolu. Euh, euh, système mu démocratie démocratie yi ñoo mel noonu bu si nekk nag ay dañuy tànnante mais ñun bii régime la ñu am loolu il faut que ñu koy wax c'est pas parce que dañu la fal kese que lu neex nga def loolu buñ ko waxati pour ñii ni ñuy seetaan ak ñi war a di wut xam-xam pour xam ni président de la république ne peut pas se permettre de faire toujours ce qu'il donte sax article 54 xaw ma jox na ko 14 ordonnances à l'année dans l'hypothèse où assemblée nationale wala yu demee noonu mais yooyu dañ ko war a di wax sénégalais ñuy ñuy xam loolu parenthèse la woon bu weesoo loolu. ñu dellu si ci mbir mii xam na lan moo xew aram hmm. mooy da on est euh, ci réew boo xam ne jarul di def ay déclaration ministre yi ndax préparé ngeen wala préparé wu leen machin et cetera le 5 juin loolu du mbir mi quand on arrive au pouvoir avec un projet solide yàlla xam na ni quand on au pouvoir ak quand on est dans l'opposition wallaay c'est différent bokkul d'abord boo nekk ci pouvoir caq ngay sol dafa am ñooy jàkkaar loolu war a wax ak ñoom àdduna di la déglu àdduna la waxuma Sénégal kese de di la déglu ci yéen nan ngeen nar a doxalee am na ay investisseurs am na ay société financière internationale la banque mondiale euh, les organismes de ay ñoom euh, AFD agence française de développement ñoom ñoom ñoom fonds monétaire international ñoom euh, kii banque mondiale ñoom ñëpp ñi ngi xaar te li may wax nii loolooy dëgg ñi ngi xaar croiser les bras di xaar ñii fan la ñu jëm te déclaration de politique générale mooy inspirer gars yi pour xam ñoom lan lay war a mën a def ci dëkk sàngam ak dëkk sàngam te moom ci boppam le président de la république ak le gouvernement ak le premier ministre dañuy sóoraale loolu ñoom loolu ci li ñuy wax loolu dañ ñoom ñu àdduna bi dañ koy sóoraal te ñoom dañuy sóoraal loolu par rapport ak seen propre politique par rapport ak li ñu bëgg a def parce que li ñu moo tax foofu lay keso yu bari di génnee question piège yi foofu lay génnee moo tax boo koy def dangay xool bu baax li ngay wax te li ngay wax nag des fois mun na nekk en porte à ak li nga daan wax ci politique bi nga nekkee dans l'opposition te des fois c'est pas très très évident et c'est très très difficile c'est un exercice extrêmement périlleux. léegi da nga yaakaar ne Sonko du ko réussir. xam nga lu tax non waxuma tax du ko réussir man je sais ni nee naa la affaire motion censure waxatuma ko parce que majorité amul xam nga lan moo am importance mooy kii di ñëw fi prestation bu muy def fan lay jëmale Sénégal booy mi ngay wax sànq ay orientation Cheikh Omar Talla il faut que ñu xam Sénégal ci déclaration politique boobu la ñuy xam tey jii nii ñii fan la ñu jëm lan la ñu bëgg véritablement te ju ñun kese de Sénégalais yi di xalaat nii. ak waa réew mi adduna bi aussi ñi ngi xaar loolu ñi yor adduna bi yor investisement yi yor xaalis bi séq ak Sénégal am ay bor wala war a joxe ay bor war a leble ñoo ñëpp ñu ngi taxaw di xaar kii fan la jëm mais ñi ngay wax nii les institutions de de Bretton Woods dañoo am ay mission yu dox ci réew mi donc. waaw mais ñoo jëflanteeg jël ay notes waaw jëflanteeg service su état bi loolu du problème. no xam nga lépp nii kay xanaa askan beeg réew mi secteur privé beeg ñoom seen ñun ñooy ñoom ñun xaar mais les les partenaires yenn PTF yi am nañu am nañu soxla secteur privé bi xala jàppale en secteur am seen bitim réew ñëw ñi am milliards bitim réew ñi ngi ci àdduna bi secteur privé yi bu ñuy taxaw nii ba léegi c'est parce que état bi moo leen di leen taxawal wala ñu am ay partenaires étrangers ñu leen di représenter fii mais li am solo dëgg-dëgg mooy moyens yi Sénégal war a déployer pour assurer sa politique politique boobu nag politique projet la bu tuddoon projet boo xam ne dafa leer nañ ñu wax ko ci réew mi leerul ci man na leerul ci ñu bari borom xel yi. Hmm. parce que xam nga lu tax leerul. parce que liiroo ko. non non non bu il faut. c'est ça non man ma yoo ah, Sénégal ma ne. solution. libre solution. amul sens xam nga lu tax parce que il n'y a pas de solution au sommet de l'État. l'état n'est pas quelque chose de figé loolu du waxtaan bu doon waxtaan bi tey ñu dugg ci. dara waxtaan bi loolu lay déclaré. non déedéet déclaration politique générale la ñuy wax du dem si leneen bu ñu waxoon loolu tey jii nga xam. dama la yàgg wax ni solution laa wax yàgg man commentaire naa si solution kon lire naa ko dama ne bi ma taxawee ba wax. le projet dama ne solution laa wax. solution d'abord il y solution au sommet de l'État. solution non dama leen solution. Ah, non solution. solution de programme la. saa yi man xam naa non lan moo tax après li mu am dugg ci foofu. après lu solution dafa am programme. non non maa maa ngi delloo si déclaration de politique générale. Ah. Ah. loolu loolu du si détail boobu bés bu nekkee sujet nañ ñëw aral ngeen génne ngeen ngeen boole ko ci waxtaan bi bu doon sujet ñu waxtaan ci. bu boobaa nañ xam. est lan mooy programme lan lan programme Sonko en 2019. dama ne xam nga lan non dama ne xam nga lan la ñuy wax la wax mu leer. Mhm. mooy boo ñëwee xam nga daa euh, trois aspects wala détails principaux yu am solo yoo xam ne dafa nekk ci jarul sax même pour ñi liirul laa wax wala ñi mënul liir wala ñi amul temps liir. non da nga ne sànq projet leeru sa bopp balak bal non non ñetti mbir yu am solo rek yoo xam ne taxaw na fi mooy <laughs> xam nga tey boo demee mais nga le boo demee assemblée nationale mm-hmm. non boo demee assemblée nationale xam nga il faut avoir les moyens de sa politique mm-hmm. idée nii toog nii ci télé wala nekk dans l'opposition di wax loolu boo ñëwee man dañ la koy méngaleel mais, mais Aliou Macky Sall a parlé pendant des années dans l'opposition il a été d'une nullité exécrable au pouvoir donc ne ne parle pas de ça et tu défendais Macky Sall ci ci thèse yooyu. non tu l'as défendu quand il était là désolé Aliou tu dis des choses yoo xam ne Macky Sall il faisait pire non il faisait pire tu ne disais pas et maintenant euh, pas possible. tu prends des notes excuse-moi je suis désolé. tu prends des mais non Macky Sall dañ ko lu mu dal moom la lu mu dal moom man man nag ma yoon la si la nekk. Eh. luñ dal dal moom la. Eh loolu daal wax ñi nga xam ne ñoo il faisait pire tu le dénonçais pas non il faisait pire tu le dénonçais pas ñu jugé ko désolé non faale woon Macky Sall faale woon mais non faale woon nga ko parce que tu le désolé xoolal man fi nga ko teg new fa kon nan la dañu ne dañu ne bu ñu demee li may wax ni nag mënul neex ñenn ñi boo faree day metti man moom neexum. non non c'est normal. c'est normal bu loolu neex ma jiñ ma loolu parce que tegoo si yoon. mais xam si yoon mooy lan. tegu ko si yoon la. Aliou Aliou s'il te plaît dama leen mooy régime politique. Aliou pour éviter de. mais kan ngay expliquer loolu. non bu waxal la ñu fal ñu des nekk ci on s'en fout. non kan non kan ngay expliquer wax. kan moo ko wax. s'il vous plaît droit def neex. Aliou il vient d'être élu. Aliou ñu ngi woon ci projet bi. j'ai pas li nga li nga si normal mais en même temps je comprends mais il faut que man li ngeen di wax man li ngeen di wax lu am na lu bari lu ma si d'accord. waaw parce que man quand j'écoute la personne man xooluma kii li muy wax ni fan la ko mën a teg damay xool ndax li xel nangu na ko. xel nangu na ne yow nga ne Ousmane Sonko dafa ragal a dem assemblée xel nangu na xam nga xam nga ragal bi. ragal bi ragal bi dégg la. wax ragal bi dina dem par force amul choix parce que xam nga xañ la ñàkkee ragal mu jëlee ne dafa bëgg nekk premier ministre de la République Sénégal ko mënoo ragal c'est impossible. waaye nag di ko assumer assumer boobu laa lay wax nii dañ xam nga politique la ñu. Euh, quest que Ousmane Sonko a peur d'assumer ci ay positions depuis 2014. jarul nga damay def ba tey jii léppam daf ko assumer depuis 2014 déglu ma bu ma coupé. Ah, depuis 2014 juin 2024. ba tey la il dama la ne. xam nga ban xam nga ban ah, solo 3 mois. boo nekkee premier ministre république ñu fal la bu ñu la falee bu ñu la falee laa wax bu ñu la xasee ba fal yow xam nga ni da war a def déclaration politique Aliou euh, war nga ko mën a lijjanti duurwaat wax ne leen ko fii xam nga koy lijjanti non déglu ma non mais bu leen ko mais loolu mën a lijjanti juróomi weer ma ne li problème li li tax prétexte boobu ñu jël ci ñetti weer il n'est pas obligé de prendre prétexte. non ne xam nga dama leen ne il veut prendre du temps. Ousmane Sonko ba mu waxee ci conseil des ministres que ne. mais mais le 5 ba tey parce que sama wax nag il faut mu yegg aussi mun ñu ko couper nii. parce que sinon man aw ma fi njëriñ. ah est-ce que am nga fi njëriñ. non su ma amul njëriñ damay dem sama yoon. tu n'as pas à dire ça. je m'en fous moi. Aliou.

am naa fu a ngi bokk non yéen a ngi bokk plateau de temps. nga baal nu tëb nga baal nu tëb nga baal nu tëb nag nga la ngay a nangu dañuy tëb xam nga la ngay a nangu tëb loo fay def tëbal ma tëb njaga tëb caayam naayam mu yóbbu ko mu dem mu dem primature yaa ngi kuul sànq ba léegi ba xàmmee Aliou merci am yi wax ak sénégalais yi Aliou léegi dañu bàyyi jërëjëf mu yegg rek mais dañ may coupé nii man moom may xaw di sëb benn laaj benn laaj dañ lay coupé ci sa élan yàq waxtaan bi pour ma bañ a yeggal li ma bëri am na laaj non ñoom ñaar ñi li ñuy def ni man xam naa la am naa laaj Aliou non laaj bi nga doon ñoom ñoom xam nga man dama nekk xam nga léegi la nga may xam man maa ngi doon wax yeggul léegi la lañ may laaj léegi ce qui fait que man élan bi ma nekkoon bëggoon parce que man sénégalais laa nekkal si sa ah, waaw d'accord nañ ci bàyyi mais nag réussir nañ ko li ñu bëggoon bu leen ko permettre ah non c'est normal c'est tout mais grave ah. laaj ma amul problème sénégalais yi euh, non non euh, déclaration non française affaire kaw difficile difficile de li mu bëggoon wax man mën naa ko wax te moom yeggu ci. non non non yooyu moom bàyyi bàyyi jàmbur ay renégociation bàyyi jàmbur. ñett yooyu ñett wax. bàyyi jàmbur mais loolu wax noonu Thiam du dañ. li ma wax ni li ma wax ni. wallaahi du dañ. te ñoom seen bopp xam nañ li may wax dëgg la te Ousmane Sonko ci moom moo ko njëkk xam moo njëkk a xam ne loolu day am par force il faut qu'il soit préparé il peut ne pas waxuma dafa ragal ragal mooy lan ku ragal ku choisir nekk premier waaye problème il faut mu teg ay stratagème am te stratagème yooyu muy teg noonu man man Aliou Sow man neexuma parce que man je suis un homme profondément républicain donc man pour man bu dee ñëw na avec un projet solide et que man sax hypothèse que je me sois trompé. ci moom ne ni projet amul fekk projet am na mais man c'est l'occasion de me de me de me de me de me de ci ci ñett ci ñetti weer yooyu depuis trois mois ils sont au pouvoir quand vous êtes nommé premier ministre vous savez très bien ce qui vous prépare ce que vous devez préparer pour l'opinion nationale et l'opinion internationale vous le savez vous avez trois mois pour régler ce problème là à l'Assemblée nationale le président de la République a eu à recevoir Bass euh, le le Mame Diop. bi ko recevoir yooyu mënoon nañ ci wax dañu waxante dëgg te yàlla tax man yooyu laa bëgg ñuy waxtaan. merci man waxuma ay Ousmane Sonko ndaanaan la c'est am na fit ak yooyu. ki la mooy lan ñu nekk fi di wax waxu Ousmane Sonko. am na fit fit. xal bi nga topp di sotti dawlin pour lan la. mais boo amoon fit la waaw Ousmane Sonko bu amoon <laughs> du yegg fi mu yegg nii Ousmane Sonko bu amoon fit ragal bi dafa am dégg-dégg ragal bi mooy moytu tëb ay ay dëkk ak yi demee parce que xam na ni ay dëgg kay xaar parce que dafa am loo xam ne la daf ko dugal par rapport à certaines promesses qu'il avait faites promesses yooyu tam dafa metti parce que loolu di ko def ba yegg ci nguur gi mais après daf lay poser problème def def def DPG dëgg-dëgg grand wallahi un mois du ko def te lijjanti wuñu problème bu règlement intérieur assemblée nationale boobu parce que bu ci waxoon na que ñeneen ñoo ko gën a bëgg xaar ñu ne même bu ñu amoon mais moom moom moo ko yéexal ñoom ñoo ko yéexal toog ba au dernier moment def conférence de presse avec seen président de groupe pour ne du ñu dem en deux semaines parce que defuñu ko depuis longtemps non y a quelque chose xam nga aussi ñun xel la ñu am xëy na nag man li may wax neexul mais nag li may wax wallaahi te fii nii kuñ ci tegaloon kaamil di ngeen xam ne li may wax nii kenn nga may wax ni du ah, non xam nga lu tax parce que c'est une pure vérité wàccal sa baaraam may leen wax allez benn question on est en politique euh, euh, on est en politique s'il vous plaît on s'entend benn question bi ngir yàlla may ma ko denc ko yàgg passe ma dafa am question may ma ko ñaata laaj may ko non may ma ko. paasa depuis sànq lii Aliou maa ko ñaan maa la ko ñaan euh, Aliou. wuy ma Aliou. c'est que Anam dama kaa bëgg quoi. <laughs> Aliou Aliou est-ce que oui ma euh, pourtant ah, quand tu demandes bu set de calmer da lu mu def naa ko. ñii rek laa la ñii rek ñoo may fàtt. ñaar waaw léegi Aliou. waaw question question bii rek ma bàyyi ma ma may la est-ce que au vu de li nga wax yëpp est-ce que le premier ministre Ousmane Sonko a raison dans ce cas selon ton raisonnement de faire attention de se méfier est-ce que je te pose la question je te jure sur le Coran qu'il a raison point. merci et je te surprends. merci non non non du tout mais nag est ce est ce que est ce que kontaan nga ci loolu. non débat clos. non ma yokk la ci est ce que man kontaan naa ci loolu. ma la man Alioune Sow kontaan na ma ci. parce que sànni naa la ne je suis quelqu'un de profondément républicain. te dama doon xalaat bu ñëwee. à sax mu corriger ma ci man yi ma doon xalaat ci moom te xëy na peut être safaan. mais comme tu es république comme tu es républicain. de te rendre compte qu'il y a eu une assemblée qui était là, qui a travaillé sur du fond Aliou, et qu'en termes républicains, tu devais t'en offusquer. léegi moo la oui xam xam lu tax. oui xam euh, euh, je devais m'en offusquer. oui ça fait deux mois que j'en parle. man waxuma fii kese man bokk naa si ñi njëkk commencé di wax déclaration de politique générale parce que dama xam li mu naroon indi leen ma wóorul. lan moo tax lan moo tax deux mois yooyu waxoo règlement intérieur.